bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waaji muusa bul fàtte waaja fa tuuba moo la tee faatu moo la tee yalwaani waaji muusa bul fàtte waaja fa tuuba moo la tee faatu moo la tee yalwaani ngala fàtte sayxu bamba ci duniyaa bu la faat saxal jëlem santaane naka sob xol ni jàkk ndeem raw na say gët mi ngi lay gis ci deewu leen seetaani boo ko fàttee mu fàtte fàtte lu say mbir war nga foo tollu far ko def waxtaani xalamal yàlla mbër mënaa fas askurukum fi suurati l ahwaani xalamaatal la jëkk fattabixooni yuhbibukum fi suurati l ximraani wa ulil amri minkum boo ko réeree tee nga dem yër fi suurati niswaani fattaqoo wabtaqoo ilayhi l wasiila bala ngaa dem ci yàlla am kerkeraani Seyxuna Bamba moo fi wuutu yonnen te misaal mi lu wér la fil quraani xulafaa uy yonen ba ngir ma ñu yaa ko dekkal yor kaamilub Usmaani yaa fi daa way yonen ba yaa donn kaabun yaa fi dam loo buusayri ak Hassaani yaa fi daa niit ci gaayu baax yi fi daa ñëw yaa fi yor mbooti ahmadul xadnaani yaa di maalik di saafi yu di xanbal yaa di baayub xanifatu nuxmaani bala yàllay yabal si fii xaama sharxin booba luy xawsu yaa di seen sultaani donne ngay mbooti gaa yu baax yi fi nekkoon yaay donay sayxu ahmadu tiijaani donne ngay mbooti kunti yoo ki xalifa yaay doonay Abdul Xaadiril Jiilaani donne ngay mboot ca xutbaam dil ya donne ngay mboot ci naari waa daymaani donne ngay mboot ci mbàkka ak ci mbusoobe yaa di lampu bii ak suudaani yaa di waamew ngëneeli yàlla yu dul fer kula taatan fardu yi ca kaw saranaani yaa di sun ngir mu jëm ci yàlla siraatan mustaqiman ku soobu teeru jinaani yaa di suukar ko mos ne aajana ndollan koo mosal dootu muslu nooraani yaa dundal ruuyi yaanu ndoxum gëm bu du kon yow kuy dee di dem niiraani yaa ragal ràddi xol yaa nu teree bew bu du kon yow noo ngi yam ak nasraani yaa fi seexal kàngam yi ñépp a ngi lay roy yow ñu tuubloo Abdul Xafoor mbaaxaani yaa nu wammat wammat murit yi nu àndal yaa di mbër yaa nu tàggaleeg saytaane yaa nu tàllal sa ténq sotti nu say may yaa di géejug ngëneel gi dun rootaani yaa du yàlla say xuyub rafaati ji say may yaa ko jiital muy xut bu diiwaani yaa defal say xoanta barke bu dul dañ jox ko daaru ak gaawaani yaa defal say xo ahmadu bnu saxiidin gëm gu ànd ak dëggal ba am ridwaani yaa defal say xo ibra bu dul fay yaa ko yoon wa jëm ca dex ga mu naani yaa saxal say xoob du daaru xaliimin jox nga bootam kuy jàng fil quraani yaa saxal say xoob du daaru xaliimin jox ko mbootam kuy jàng fil quraani yaa jafal lampi diine gaa fa tuubaa sanc daaru salaami ak man gile daaru salaami ak gile tuubaa ku fi faatooti daldi tabbi jinaani yaa ma seexal te may ma fax fu ba may way yaa ma dox di mbal di sab sambaani yaa ma gàddu ñaggitaa ka yanuy tar yaa ma tee gàddu mbal ka tey sammaani bamba yow yaa di ceebo la bay bu la góobee këram ga duñ xaaraani jërëjëf sayxu bamba yaa mata àndal kulaam dootu ñàkk bay ñeetaani bamba yaa jar di xëy di gontu ba far yaa defal yàlla lépp lum santaane yaa jëfal mustapha la xew si ya tànnoon yaa di xëyrul xadiimi fi diiwaani yow gërëm loo nga yàlla teg ca gërëm ji yonnen wallaahi yow yaay war na noo dellu sant xayrul xadiimi sayxunaa ahmadoonu fal fil xiini baay daam ahmadoonu may lanu tànnoon moonu yóbbal ngëneel yu taaru ci diine sunu waa ji ku seetlu gaaya ca baawoon war a jóg sant yàlla tey def yooni danu daakaas baraay di sotti li yóbbal tey ku jóg gis fu dàq kër gamu danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar tey ku jóg war wataa ci gaali sa fiini la ne woon ndar ñëw mbàkke lee na fa njur bel buuse yi rey ndawal gi dootu nu buuni yile xiiwal ku seet lawam gi te sontoo tëraloo bàyyi faati ak may muuni yile xiiwal ku seet lawam gi te sontoo tëraloo bàyyi feeti ak may moone yile may doy na sépp góor ci bu farloo xeeti yóbbal dadaa defar aw yooni yile mat loo kisum yaag yile taabal njegenaay taali lamp mbajj yu leene dani yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu daalal tagar gi tey bin biini darinaar yaa ngi toog yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi tey bin biini yaanu nandal ci koppi weer yi nga feeñal yaa di mbër yaanu tàggaleeg naan kooni yaanu miinal kafeeki kaasi ataaya yow sa ndox meenu tàggaleeg naan moone mile mbaani ku ton ni ni wite sammoo war a kañ say xu Bamba ku yal diine mburu maag yàpp waa ngi yaanu ko saafal boole na ak saw jigéeni xóorul xiini nan gërëm sayxu bàmba ahmada xaw doga nag mbàkke bàlla nuy miskiini yaanu génnee ci néegi ndóol yanu bokkoon fam nu tàbbal ci néegi am ak diine yaanu génnee ci réer gu réew mi josaanoo fam nu tàbbal ci néegi xam ak diine yaa nu génnee ci noone boole sunuy xol xar sunuy xol def ci cofeel ak miine yaa nu wan yoon wu mag di aw ba yëram ndaw ndaw di màggal magam ñu rey ak noone yaa di sun xebla yaa nga féeru fi tuubaa doy nga nok aj dootun siyaara keneeni yaa di sun wird yaa nu doy ci muxaddam yaa di sun ismulaahi doy nga nu yéene yaanu ximbee ca naari yaanu teree xam yaanu tee walli lamb niy saangooni yaa taxaw rey bi yi dekkali waajib bu du kon yow noo ngi mu xañ xobi póoni yaanu génnee ci néegi réy ganu donnoon maa ci raw man mi kànk ak cekkeeni yaane may may yu tax kajoor dinu raamal bu du kon yow waa penku duñ jar niini ñi ngi nuy koo kawal ni buur dinu neexal dinu waafal te noo bi daa xëy ñi ngi nuy jox alal yi def ko idaaya di ko yónnee te noo fi doon miskiini ñi ngi nuy jox cerey layak yamu àndal dinu ceebal te noo fi doon nu gumueni ñi ngi nuy def waroomi mbóot dinu màggal dinu xejjal te noo fi doon ay seeni ñi ngi nuy jox lu xel dajul waare yaa tax danu daa ŋàbbi wattu tey yun yuuni ñi ngi nuy def waroomi mbóot dinu màggal dinu xejjal te noo fi doon ay seeni ñi ngi nuy jox lu xel dajul waande yaa tax danu daa ŋàbbi wattu tey yun yuuni yaanu génnee ci néegi ñax dinu taaxal danu daa seeluy foogi wal xiini yaa nu génnee ci néegi ñax di nu taaxal danu daasee luy fuugi wal ciw yaa di jantum njolloor bi feeñ nga ci dunyaa bu du kon yow soo daan mu jam ak neeni yaa di baayum miskiin yi yow lanu def ndey yaa nu nampal sa ween a gën ay weeni yaa nu daa jox ndigal lu ànd ak xiiwal daanu siimal cerey suba ak joñ ngooni yaanu daa may naataanga yaa di ndoxum dex yaanu tàmmal di yoole junni jigéeni yaa di peppam wurus di tool bu du sàppi ku la ngar dootu gàddu ay tax yéene yaanu may may yu tax sariifi madiina dinu raamal te noofu daa raamaani yaa fi luumal fóorey kajoor ak i yaa fi jërfal xeram yi fab buur siini ña fi daa kaala ka woote wedam nañ ña daa wajji faa wér duy ngooni naari gànnaar yëngal na njañ yeni maalum ña yaroon ismulaahi dootuñu biini say maqaamaak say jagle kenn mënu koo xam say karaamaak say jéego kenn du ko séeni yor nga mat nga boroomam xam nga xel mut diraaya am nga yaqiini mbëri diiwaan tëggaale wuñ la ci géew bi nde dangaa daane mbëri yewub nga fi diine yaa sax béjjani ñu rëy ñett daanoo ku du yow daana daane yaa am diine yaa fa ñu rëy ñett daanoo ku du daane yaa am diine yaa not ruu yu wedd yàlla te xéexoo ku du yow daana tuuri dammaka ceene yaa fi mat xutbu mappi xawsu di xaalim di xadiimi rasuuli far di amiini yaa di maahin ndefar nga tooñ yanu tooñoon yaa di tëhëte yaa di yaay donay yaasiini yaa di maahin defar nga tooñ yanu tooñan yaa di tëhëte yaay donay yaasiini yaay xabiibul ilaahi yaa di xariitam yaay siraatal ilaahi yaa xam yooni yaa di misbaahu yaa di làmp bu dul fay yow sa leer gaa nga dox bawal jëm siini doga nag laa nabiya ba'da nabiyin nu ni ndax war ngaal buraaxi lamiini yaay donay Mustapha di xayru samaanin yaa fi yor mbooti ahmadul balxiini sàkk ngay xut bu sàkki xawsu samaanin baarakallaahu doomi bàmba lamiini yaa fi nooyal te fas dawul jaasi xeexul luggu pëltaawu xeej naa kuuni yaa fi faj aajo waajo ak si nga seexal yaa nu wommat jox yàlla ciy teggiini ñii nga jox wird ñii nga yéege ci baatin yoonu ñàkk ak ñaq ak bi saw yooni yaa nu wan sunna yornu yarnu te dóoroo yaanu royloo yonen ba par nanu miini caatum ak sesin la quartier ya booloo yor balak doom jëm dëru ngir pari diine ba ñu yegsee xam nañ ni yow doo fayantoo su la neexoon seen ruuya dem si jiini ndemalaakay badar yelim ba fa toogoon lu ñu noon seew am say ndigal ciy noone yow nga far jàpp ruuyi gaaye ca baaxoon def ci lislaam yaa xóoti mbir doo cuune ba ñu delloo la doomi buur ya ña ca doon gërmi ñépp naa tuub leeni caxatum alsasin la mbër yeni janjang yaa ca ramloo mbaaxaane ak buur siini yële kàngam daw fekki ceerno birahim yële kàngam di ñëw fi yow di la fóoni gellu yaa nga làmp boole fa njurbel yile xar baax saxal na kun fa yakooni ku fi daa weddi diine nee ko fa waylun mbaa dem yër fii suuratil maahooni caxatum jam sa sin la buurub taraase seet si njurbel gaayam ya naa la amiini góoru ngi wal di sañ fa tuubaa ñala daa noonu ñi ngi aw yooni sayta gay war di sun liggéey ya ki ngonnal yow la nuy soxla woo ba dunu waxi neeni yow la nuy wër di waaja yow la nu taaroo sopp laa gën ci murit ay leeni bamba yow say karaama kenn mënu koo xam nde géej nu ak moom teeni noo ngi lay ñaan yow bamba waaju la toppoon yal na yooloo fii suuratin wattiini noo ngi lay ñaan yow bamba bis bu nu faatoo ku xaman sayxu bamba déefu la ceene te malaakay mbugal ya buñ nu fatiisal def nu way weexi marke fil jabhiini yow ma tabiyat defal la siine wujuhun bu keroogee murit yi am lu ñu yéene yow ma na duhoo yëram nu kulla unaasin fam nu tabbal fii jannatil xuldiini bu nu dekkee ba siraat nang nu wammat ndax nu far raw melax gu këf ciw xiini bu keroogee teral nu teeru nu ciy ñam te nangul nuy jigéenu xóorul xiini nga la moo saafaral taxaw lu te bul wéy tee nga far julli waxtu waa nguy ngoone mbaa nga wax salli rabbi xayra salaatin bi salaamin xalaa nabiyil amiini mahaalin wa saabihi wa xadiimin ak i doomam yi nuy defar fil xiini maa aalin wa saabihi wa xadiimin ak i doomam yi nuy defar fil xiini subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahi rrahmaani rrahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman ma jóg kañ waaja daa way ngeen ji yonnen ba yonnen fal ko muy xut bu boroomam ma jóg kañ waaja daa way ngeen ji yonnen ba yonnen fal ko muy xut bu boroomam li tax way wii wolof te waroon di yaaram dama nargaa yi jëngul xam boroomam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may géwal sañ naa wëree luy kañ boroomam ma nettali fiy jaloore te solli fiy ndam te wax xar baax yu tax ngeen xam boroomam te xej yee yàlla fal xam nañ maqaamaam ca xar baax yaag ca may yaa xam boroomam ca wàlli yu yaag ca xew suya sax fa diiwaan ca xut bu ya ak ña daawee tëg ñaxam yàlla ñaxam yoon nen ca baawoon ba tey kenn jëragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba ko noon ya yóbbu ku diiŋat wax ji moo ju yoog boroomam ca géej ga la làmbe yàlla ba fekk muy géej mu tànq ca leeri xëy bu ya naan boroomam ca géej ga la dàqe saytaane ki gaayam bu ñuy maaj muy taxaw faratay boroomam ca géej gala mbootum kun ci baatin bu noon ba fa bee kanoo mu ni kun boroomam ca géej gala bàmba tijjee ndam bi xam-xam ba fa fi yor alluway xalim ak boroomam ba àgg ci yàlla àgg ci ngën ji yonnen ñu sopp ko soppi léppam muy boroomam saxal foofee jihéeri bakkan ci ay at di boole tagg ak julleeg wéetal boroomam ba fab seey mel ni suukar far ci yon di moom moom ci baatin cey boroomam ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fab kun ñu womat ruuy jox ko mu jox boroomam di kenn ku ñépp xam foofee ci baatin tubaab yay bañ sëriñ sa boroomam mu faf dib jant faf tiim jépp dunyaa di taalif téere yuy sellal boroomam malaaka seere pal am fa diiwaan mu fal ay xut buy dee yëg boroomam balaa la fa am ci peey aras ci baatin ñu diisoog daam te mooy jeesi boroomam te mooy wuutaatu yonnen far ci kaw suuf di mbootum kun ci lépp lu soob boroomam mu làq ngërëm ci sëriñ tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soobu ni mes bu génnee xam boroomam ku soobu tewi taaw yoonam ya feesal ci ay leeram ba fab di duyal moroomam ku soobug dex na xam ndox dof bi yeewul te wattum ndox lewat na tewex ci biiram ku soobug dex na xam ndox dof bi yeewul te wattum ndox lewat na tewex ci biiram ku sàggan sànku fawu telab te doo duy te doo set doo setal doo xam boroomam meloy bàmbaa ngi waaju xamul na digloo te roy roy luy jikkoom moo xam boroomam di jox aji laaj di dimbali ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroomam di may ku ko bañ di woo ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku kuy mooy boroomam di faj aajoo ka xam lay mbóot di seexal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 tëmët la tawat lu xew ci kudul boroomam du daw ay noon du yox yoxe ngir pexem nit du sukkandikoo ci mbamb kudul boroomam lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu far ak boroomam lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu far ak du wopp ba tax mu wàññik jaamu yàlla am du tiis ba mu tax mu ër faratay boroomam du wopp ba tax mu wàññik jaamu yàlla am du tiis ba mu tax mu ër faratay boroomam du déggum noot du mbaab kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw cey boroomam du tab jëbatiim du wuute musul di du gàppuru bis du wéeru jullil boroomam du tab jëbatiim du wuute musul di maamoom du gàppuru bis du wéeru jullik boroomam du yeexal wenn waxtu te mus la fay faat la koy wax raw na moom sar mooy boroomam du ñàkk ba tax mu bodd kuréel ya koy laaj du denc alal lu dul téerey boroomam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 dër ba ni këng nooy ba ni nepp ci wet te am njàmbaar gu tar te ragal boroomam wayaf ba ni toy diis ba ni gann ci wet lewet ba ni doom saf sàpp ak boroomam sawar te te yaatu te xër te am ngor di tab bu du jeele am jox boroomam rafet jëf saf xoram du waxaate réewul bari teggiin ci kum gis ngir boroomam du xejjeg seen du ay bokkam du jaamur ku ñëw mu teral digal la nga xam boroomam du bodde du ñax du jànni du xutti saatir dalay yaatal ëfal la nga mel ni doomam du màtte du jëw du xool lu warul te siisul du rommi du mer du xul ci lu dul boroomam du màtte du jëw du xool lu te siisul du rommi du mer du xul ci lu dul boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo du dog war maa ki bokkam baa boroomam du fàtte du fecci wëllëre mës la war nit du xaddi du naagu yërmande ngir boroomam du bew du bajantu day waaroo kawaare du jeng du fakki maasam ngir boroomam du reetaan nit du farfarloo du sob nit du yàqub der du tas nit ngir boroomam ndaxam ji waay ji koy yonnen la lamboo mëneefu la lim ngëneelam yéeg boroomam fu nuy raaseeti waajuy mel ni miibër woyof na ca kaw te diis na ci biir boroomam fu nuy raaseeti jant bu dem ca njolloor te leeral yépp gox di kenul boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ni buy wax ku nekk di lox di làqu ku dul fu nuy raaseeti ko bu jógaadu geesoo di romb dërëm ya jëm ci mbirum boroomam fu nuy raaseeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fu nuy raaseeti kuy ji sëhlu badrin di ànd ak ñoom te dëkkaaleeg boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ni buy way arafu mu def aras di ca bég boroomam fu nuy raaseeti waajoo xam ni fu teew ku wopp mu faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ bii xut bu bay raasi yi moroomam du gis bu ni mel ci jamono yi boroomam gisee fu ko wan ca gaayaween ca baawan te xër nuy jubit du ci ñëw moroomam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 te sàkk ku làq njagleeg sii di muxtaar ki dem ba siyaare yonnen moo ki doomam te seexal kem li say xii bam ba seexal te sellal seeni xol ba ñu xam boroomam te sàkkal leeni mbooloo faw yuy jëf te tàggat ba duñ mën a mooy boroomam te kët na saxal liggéeyal ngën ji yonnem te bum tere muy taxaw faratay boroomam